My mother. My mother. Sama yaay. My mother. Sama I love you. I love you. Bëgg naa la. Dama laa bëgg. I love you. I don't know. I don't know. Xamuma sax. I don't know. Xamuma sax. How to describe. How to describe. Nan la mën a wàññee wala wuññee. My feelings. My feelings. Samay yëg-yëg. My feelings. Samay sentiment. My feelings. About you. About you. ci yow about you ci yow about you ci yow You get up early. You get up early. jóg. You get up early. wala you wake up early. ngay teel yeewu. In the morning. si suba si. In the morning. ci suba si and start the housework tàmbali liggéeyu kër gi nag and start start mooy tàmbali moom ak begin you wake me up you wake me up danga ma yee you wake me up danga ma yee

ubbi yi. When the weather is hot. Bu jaww ji tàngee. When the weather Or when it is cold. Wala bu seddee. When it's cold. You clean up the house. You clean up the house. You clean up Dangay setal kër gi. You clean up the house. Dangay setal kër gi. You wash the dishes. You wash Dangay raxas ndab yi. You wash the dishes. Dangay raxas ndab yi, plaat yi. In the kitchen.

And the blankets. And the blankets. Ak dara yi mooy ak darab yi. And the blankets. And also the pillows. And the pillows. ba tey ngegnaay In the rooms. In the rooms. ci néeg yi.

yow yaay dem marché. you go to the field. you go to the field. yaay dem tool. you go to the field. field mooy tool. you do shopping. you do shopping. yow yaay nduggi. You take care of the family. You take care of the family. You take care of the family. Yay toppatoo njaboot gi. For sure. For sure. Sa dëgg dëgg. For sure. Sa dëgg dëgg. No one in the world no one in the world amul kenn ci àdduna bi who can take your place who can take your place ku mën a jël sa place sa barab I come to know that I come to know that maa ngi soog a xam loolu I come to know that maa ngi soog a xam loolu after learning after learning ginnaaw ba ma jàngee after learning ginnaaw jàng how a family naka ak njaboot wala njaboot how mais wax ji àggagul quoi complété gul should be led should be laid lañu ko war jiite as a mother as a mother en tant que yaay ab yaay en tant que to get married to get married to give birth give am doom give am doom breastfeeding breastfeeding breastfeeding nampal mooy dundale teach how to sit teach how to sit jàngale nan lañuy toggee teach how to crawl teach how to crawl nan lañuy raame teach how stand jàngale nan lañuy taxawee stand stand up mooy taxawal teach how to walk teach jàngale nan lañuy doxee Walk. Even how to run. ba ci jàngale nan lañuy ñuy dawee. Even ba si même. And how to speak. ak nan lañuy ñuy waxee. And how to speak ak nan la waxee. all of these sacrifices all of these sacrifices sacrifices yépp you did for me you did for me nga def ko ngir man You did all of this sacrifice for me nga sacrifier lii yëpp ngir man. Hmm? To make my life. To make my life ngir def sama dundu. To make my life ngir def sama dundu. Easier and better. Easier and better. gën yomb gën a baax easier mu ngi bàyyi ko ci easy mooy lu yomb better mu ngi bàyyi ko ci good mooy lu baax better mooy li I am sorry. I maa ngi jéggalu maa ngi I am sorry. maa ngi jéggalu. I If I commit a mistake. yow yaay if I commit a mistake bu ma defee njuumte if I commit a mistake ci bu ma defee njuumte bye bye